sànq ba tey yaa ngi wax mais yaa ngi ba dafa mel ni yow instant bi yaa ngay défendre ki nga xam mooy le président Macky Sall mais yow yaa ngi bokk parti bi nga xamante moo di AFP ñu bëri ñu bokk si ñeen dañu ne Aliou Sarr mooy seen candidat. hors sujet nga def. <laughs> ah tu m'as pas ah, mais ah, euh, euh, euh, c'est pas non non c'est man je suis responsable du ci bureau politique gu AFP. Mhm. su ma génnee fii léegi ci président Niass laa jëm. Mhm. donc man boo ñëwee naan ma ñu bëri nee nañ. dafa mel ni tey nga ma ne la dégg na muy Kaolack muy Kaolack muy Kaffrine et alors muy et alors Saint-Louis partout yow dama yow booy dem yow booy dem reportage du fépp ngay dem dafa tax nga nekk directeur 7 TV fépp ngay dem yow nii la léegi sax duñ ko gis may mën a taxul nga nekk moom télé bi de wala rajo bi mhm. c'est chose ah ku ci nekk sañ ngaa jóg ne man fu nee naa fa dem ne candidat la d'accord ñun AFP tànn guñu candidat amaguñu candidat bés bu ñu koy tànn ñëpp dinañ ko yëg parce que ñun noonu la ñuy fonctionner duñ dox guddi.